say kàddu mm. ak soññul ñu mbooloo mi mm. euh, santal ñu leen ñaanal ñu leen mm. ba lu ñu fi def ren rek bu déwee ne ñu def lu ko faw xam dañ fekk leen fi te ngeen yàgg fi lool ci kanam sëñ Muntaxa moom mu yàgg ci suñu kanam barke Sëriñ Tuubaa ñu sant it sa mbokk yi abdulaad abdulaad yi daa mel ne dañoo doon seen turandoo ci ñàkk caaxaan waaw wax dëgg yàlla yéen ngay afiya di yéen xéewal goo xam ne yaa ne ci seen kanam kon nag bisimilah suñu bàyyi yi bàyyi Abdou Ndiaye Baye Baye Baye ak ñi ci yëpp suñ Mbàkke Njaay fédération ak Baye Tambir ñoom ñëpp seenu kent ak seen yéene macha allah rawatina nag la coordinateur suñ maam daam loo Cheikh Moustapha Al Karim bii ne man dama cee sant sama yàlla bu mm, baax mm, mm. sant yàlla ndax Saalum Saalum yi waxee noonu bi liggéey bii demee noonu dama ne nañ xool maam daam ndax benn magut ba egg ci lool waaye ndawut ba egg ci lool <laughs> te fee mu féete ma ngi fay dox doxin woo xam ne wii ne buñ ko ci royee dana dox alhamdulilah ñu coordonné ko lépp muy liggéeyu jumaa ji euh, koor gi ak màggal gi lépp moom moo ko coordonné waaye nag tamit nag suñu rak suñu jëwriñ suñu asan diaspora ñoo xam ne bi ne moom infatigable du sonn benn waxtu moom moom moom jën man jën waaw moom it muy loo xam ne lu mu doon woon ci ay baayam la ñu xam ko ak i maamam maasàllaa mbokkam yëpp a ngi nii muy suñu mu Abdoulaye Diop ñoom xaadim ñoom ak suñu xaadim caam ñoom ñii lan Las Palmas ñëpp mënuñu leen a lim kon daal ñu ngi lay siyaare it euh, soxna xanaa dal du leen nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo jiitu moo jiitu sëriñ ci yoonu sëriñ bi xam ne lu waay def lépp ci mu koy defee ak ñaan ak ci turu daat mu xadim xadim bi nga xam ne seen liggéey ci ñoom lay jaar mu liggéey boo xam ne moom daa iman day dox jëm kanam euh, soññ moom ku ne ci la lañ koy def waaye koo xam ne boo xoolee seen ko seen ko sa kanam moom xanaa da nga ciy soññoo waaye yéen kenn du leen soññ yéen dañuy soññoo ci yéen waaye kenn du ndax daa rek seen tay ju ne rek gàcce la seen démb waaye nag doxalin sëñ moo mel noonu waaye noonu nag yàlla ko seen lépp mel waaw ne seen lépp dox jëm kanam rek te sëñ bi nangu lépp barkeel yëngatu yi barkeel njaboot gi soññ moom amul lu ñu koy def ci yéen waaw ndax ku dee ci kanam kenn du ko waaw su ma nekkoon seen kanam naa leen woo waaye nag damaa ci seen gannaaw moo tax suñu suñu suñu ma doon wax bisimilah waaw waaye daal ñu ngi dolli sant bu baax a baax a baax ndax liggéey bi ànd nag nag jom ànd nag góorgóorlu ndax ku ne xam na ne jamono xatee lépp lu waay def rek da nga ko da nga ko bokk waaye xaj na ci yow waaye nag sëñ bi jaral leen ko waaye si te alhamdulilah jar na ko waaw daan wax ne euh, sëñ bi daan wax ne na ngeen na ngeen na ngeen na ngeen yenn seen diine ak seen taal bokk seen addina. bu leen namee la jël ngeen sànni ko waaw loolu sëñ Tuubaa naan waaw kon nag waaw waaw yéen nag mel nañ ci loolu ngeen nekk ndax ñu jamono xate moom ku ne xam na ko ku ne xam ne réew mi doon na mel fi mu nekk kon góorgóorlu ngeen def ba def nii ku ne xam ne itte la positif la waaye jóge nga ko mën a jëmi ko am pay mu Seexul Xadim yàlla moom ni mu toll ndax jëflante ngeen seen kum kattan te moom ku jëflante moom loo tere mu jëflante la jomb yàlla na ko jëmee kanam mi ngi ci sax waaye na ko jëmee kanam mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di siyaare ñëpp di baal àq ñëpp di wax ne ilal amaam daa iman rek ci kanam ci kanam rek ci kanam ci kanam bismillah jërë ngeen jëf mbokk yi ginnaaw nag bi nga xamante ni euh, gis nañ ziar bu am solo bi nga xam ni waa daayira fédération Espagne amal nañ ko ci waa daayira Muxaddamatul Xidma ci njiital Serigne bu Bousso ginnaaw nag bu ñu yëkkatee seeni i hadiya jox ko ki nga xamante nag euh, moo di Serigne bu so waaye tam ñu feggoog Serigne Abdou bu Bousso Thierno ak Serigne Abdou Lahad Bousso Maam Asta ginnaaw liggéey bu am solo boobu nag euh, mel na ni dañuy jox kàddu kenn ci jëwriñ yi Serigne Babacar moom mu yëkkati kàddu kaddu yi nag xam naa ni kaddu yi cant ak ngërëm lay doon waaye itam soññee ndax liggéey bu am solo bi nga xam sëñ Afia wax na leen ko ne leen da ngeen ne ci kanam moo tax kenn du leen soññi yaakaar naa ñoom kon dinañ soññante ci seen biir ndax seen taxawaay seen pas-pas seen liggéey bi nga xam ne ñoo ngi koy def fii ci euh, jumaa ji yaakaar naa ni at mu jot nii lañ koy àndantee kenn du leen man ci liggéey jumaa ji wax dëgg yàlla loolu tam taxawaay la pas-pas la sëriñ bi bisimilah. bisimilah rahmaani rahim sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim sadid lisaani nawet janaani safi amaani wasid baraay euh, di ñaanal Cheikh mun taxa mu yàgg fi loolu te wér euh, noonu lañ koy ñaanale umma islam bi yëpp euh, di santaat yàlla bu baax di ko sant sant xol waaye di ko sant it sant làmmiñ bi ñu delloo teewaat fii dajeek sëñ Afi Bousso ak waa daayira Muxaddamatul Xidma bi yëpp alhamdulilah rabil alamin defe naa ni ñëw nañ ci turu. suñuy jëwrin euh, sëñ Mbacke njaay mi nga xam ne mooy jiite daayira bi nga xamante ne ñoo nekk Espagne waaye ñëw it ci turu président d'honneur bi nga xam ne mooy sëñ euh, Baye Tambédou naka noonu lañu àndeek mag ñu tedd ñu sell nga xamante ni Espagne bu mel ni mel tey yàlla ak ñoom rek a tax mel ne euh, Baye Abdou El Hadj Abdou Ndiaye Baye Adi Touré Baye Dame Lo ak ñiy jàpp ci liggéey bi yëpp bu ñu limee du ñu matal. Euh, soññee yi moom defe naa ne mag ñu baax ñu tedd ñi ñu àndal wane nañ yoon wi kon mu mel ne euh, liggéey bi ñu fi fekk euh, te yàgg fee ñëw ci at yi weesu li muy wane yéeme na lool waaw yéeme na lool ba ñëpp war a jàppaat waaye jàpp bu wér bu dëggu te yàlla rek tax waaw ndax it sëñ tuwaay jar na lu jaral nañ lu ëpp loolu kon nag dafa mel ne mag ñi moom ndigal la lu ñuy jëfe ci wax yi ndax kàddu yi léeg-léeg sax duñ ko mëne waaye ñu ngi soññaat waa Espagne yëpp fu nit mën a nekk da nga xam ne liggéey bi sa liggéey la ci turu ci turu sëñ sëñ Mbacke Ndiaye na ñëpp jàpp waaye nañ gën a ñëpp gën a jàpp sax la ñuy wax ba liggéey bi ñu gën ko mën a yor yor yorin bu rafet yorin bu sell gën a ànd ak Moukhaddamatoul Khidma ci liggéey bi loolu daal la nga xamante nii eh, moom la ñuy ñaan ñëpp gën a jàpp waaw kilifa yi ñu àndal moom la ñu wax bi ñu waxee mënuñoo wax lu weesu lu ñu wax ñi fi yëkkati kàddu yëpp loolu la ñu wax kon na ñëpp gën a nga ñëpp gën a jàpp rek jàppin bu rafet bu sell te yàlla rek tax ñu ànd ñun ñëpp liggéeyal si Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñi ngi santaat bu baax nag ci dalal bi ñu dalal ndax looy it mënuñu koo ñàkk ba ñëw sëñ Abdoulaat sëñ Abdoulaat yu tedd yi fi teew sëñ Abdoulaat Bousso e, dara sëñ sëñ Abdoulaat e, Baye Thierno suñu baay e, kooku moom suñu bàyyi suñu baay la suñu baay la yàlla na yàlla doolu yokk ay yërmandeem lu yàgg la waaye ñi ngi ñi ngi bég kawe na lool ba eh, mbégte mooy waral sax léeg-léeg kàddu du mën a génn. Mm-hmm. waaw mbégte dana waral ay kàddu du mën a rot. waaye suñu xel dalaat na bu baax ci liggéey bi eh, ñi ngi soññee waat ñëpp rek ni ñu ko waxee moom la Baye Baye Baye El Hadj Abdou Ndiaye wax moom la Baye Malle Ndiaye mii ñu àndal wax moom la ñii ñu àndal ñii ñëpp te noppi sax ñun ñëpp loolu lañ wax ñoom sëñ Ablaye Diop Baye Siri Niang mi yor suñu kàddu ñun ñëpp loolu lañ wax te loolu lépp kàddu googu ñu ngi koy jàllale waat ci Espagne ci ruq bu mu di nekk waaw liggéey bi nañ ci gën a teg loxo bu baax a baax a baax ndax bari bërigo ci mbartal la waa li ñu fi gis yéeme na lool bërëb bu nga xamante ni lu ëpp ñeenti junni nit dañ fiy ndogoo bi ñu ñëwee gis nañ ko am na sax ñu jotul woon teewaay teewaay jotaay bi ba gis li xew waaye daaw defe naa sëñ Abdoulaye Baye Thierno daf ñoo wërale ñu xool ñu gis kon nañ xam ne liggéey bu sell bu tedd bu kawee fi liggéeyal yàlla bu kawee kawe mi ngi fi ñu ngi ñaan ñëpp gën cee def seeni i loxo ñu ngi jéggalu baax kàddu yi ñuy rotal euh, ndigal lañ jëfee rek waroon naa gën a mat sax waaye nag ñu ñu yemale ko foofu rek di wax waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. sëñ Babacar kàddu yi am na solo kon ñu jox sëriñ bi mu yëkkati ay bayit euh, mu bi sëñ Abdou Lahad bu sa Thierno euh, ndax li am solo mooy ngeen xam yéen waa Espagne gépp ne liggéey bi ngeen liggéey sëriñ Touba sëriñ Touba nangu na ko. ndax nangoog Serigne Touba mooy Serigne Afia mi jiitee liggéey bi seere na ko Serigne Abdou Lahad yi nga xamante ni ñoo dox seen diggante ak ñoom itam seere nañ liggéey bi ngeen di def ca liggéey bi day liggéey boo xamante ne su ngeen duggee fi xam ne euh, lu ñu wax ni daaw 75 millions dem na ci ren ñi ngi xool 100 jëm kaw kon yaakaar naa ni lu ci waay def mu bu nekk war ngaa euh, jaajaat sa bopp xam ni liggéey bi liggéey Serigne Touba la liggéey Serigne Touba boo xamante ni damaa deen ak léegi bi may kii ñoo xam dégguñu la sax fi ñu doon fi ñu doon ndogoo may naa def leen lii def leen lii leen lee fan jógee sori nañ nee nañu ba ñëw fi jaar fi rek dañ doon ndogo di dem du ñu ay murit sax far kon yaakaar naa liggéey bu ñu nangu mënta weesu lii sëriñ jox la kàddu bismi wajal ilahi ni tuuba abaat mislasmia bijaayi xayri man abaat wajlub laa alxayra min aljaati asitti wakfiha an il afaati waxfir li man banaw binaa haarafi waxfir li man amarahum bi jami waqdi awaaij allazina daamoo fi xidmati wa hablahum maaraamoo addi borom Tuubaa waaw ah, bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu sëñ Babacar ñu ngi lay nuyu yow mi doon jël kàddu léegi <coughs> di jël nuyoo bi di ko jaar ci kilifa yi nga àndal te tudd leen léegi muy alaaji Abdou Ndiaye Aadi eh, sëñ eh, sëñ Daamloo ak sëñ mal Malla Ndiaye ci sëñ Ablaye Diop ak jëwriñ yi nga xam ne yéen ngeen àndal ñëpp dañ ràññee leen xam naa waxtu wee may wut sëñ Daam Xariloo ak ak Baye Adi Touré ah sëñ Adi tudd naa ko léegi sax xam ah, naa ñoom ñëpp xam naa leen waaye damay bañ temps bi gën a gudd rek waaye ñun ñeen ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñu ngi leen di nuyu waa ah, sëñ Seyd ñu ngi di baax a baax di leen sant di nuyu bokk yi nga xam ne ñëwuñ ku mel ne euh, Baye Daam Lo mu Cheikh Moustapha Karim di jëwriñ sëñ Assane Diop ak kilifa yi fi nekk yëpp xam naa kàddu yi weesu woon doy na sëkk waaye ñun dañuy dañuy dañoo mat seede ci suñu diggante suñ seen diggante ak daayira Moukhaddamatoul Khidma maanaam man su may seede dama koy tàmbali ne maanaam euh, jëwriñu sëñ Tuubaa ji di sëñ Muntaxa moom yàlla da leen cee defal xaas ci ak ayam ci ci ci Espagne ndax soo dee xool euh, bagage yi fi njëkk ñëw tam ñëwoon fii ci jumaa ji di ko seede jàpp naa ne ca la leen tàmbulee bàyyee xel ak ba mu fa ñëwee tamit gis seen pas-pas loola tax na ba euh, am na yoon wu ñu indee camion bii camion vidange bi ci la waxoon ne na ngeen farlu ci matériel bi te boole ci ñi nga xam ne ñooy yëngu ci biir jumaa ji boobaak léegi dëkkut ren jii nag yàlla defal ñu tawfeex bi ñuy jë nangu ji ndigalul koor gi ñu daje fa ak sëñ aadimi ñu seereel ko ne ko ah ñii la nga leen waxoon ba léegi ña ngi ci mu ne ma waa ñoom kat dañoo am tawfeex sëñ Tuubaa <laughs> loola nag kon jàpp naa ne moo tax ndigal yii leen di dab man dama koy wax toujours te du duma ko faral di gën a wax ndax it euh, maanaa euh, daayira bu buñ jox ndigal ci jumaa ji sas leen tappi jumaa ji wax dëgg yàlla ci fédération Espagne laa ko mas a gisee ci la njëkke ñu noppi ñu sas leen kër sëñ Touba gi loola kon maanaa bëri na ñuy laaj ndigal waaye yéen sëñ moo leen tànnal boppam di leen jox ndigal kon loolu pas-pas bu des la sëñ bi nag du liggéey loowut koo xam ne nattut sa xol ba gis pas-pas ci yow kon loolu wax dëgg yàlla taw feex la ju rëy rëy joo xam ne sëñ Tuubaa moo leen ko jagleel kon loolu yàlla na ko yàlla saxal kon ñi ngi sant bokk yëpp di ko teg ci seen loxo muy bokk yi nga xam ne jëf nañ ci liggéey bi nga xam ne def ngeen ko te at mu jot mu yokk moo xam ñi nga xam ne dañ koy jaarale ci plateforme muy muy euh, association Moukhaddamatoul Khidma Espagne boobu nga xam ne ñooñu dañuy gis publicité bi rek <clears throat> benn ñu gis ko istixaama wala ñu gis ko euh, kii di di ci jaarale seen addiye tey doon mbooloo mu takk ak ñi nga xam ne ci jëwri ni la ñuy joxe ñooñu ñëpp suñ asan da da koy leeral mbooloo mi ak nu nu mën a demee kon loolu jaaru na it ñu gën leen koo leeral bokk yi nga xam ne ñooy seetaan te ñëwuñ kon daal ñu ngi sant bu baax di gërëm xam naa li suñu aafi wax léegi dafa doy sëkk te ñun ñëpp ñu mën cee jariñu muy nañ jël suñ lu baax ak suñ àjjana ak suñ tey suñ ëllëg gàddu ko te jël suñu àddina bokk ko suñ gisee luñ xamul bàyyi mu daanu si <laughs> yaa fu ma leen ko seeral léegi daal di yéen ci loolu ngeen nekk dafa mel ne da ngeen a xool li nga xam ne moo leen di jariñ nge ah, ah yanu bu ngoog loolu la ko waxee yow suñu àddi jàpp na ko moom nañ yanu suñ diine jàpp suñu taalibe bokk suñu àddina buñ gisee luñ xamul wacc àddina mu wàcc ñu ànd ak suñu taalibe ak suñu diine dem ah loolu sëñ bi doy na sëkk moom wax dëgg yàlla ah, kon nag rafet nañ njortu ci liggéey bi wax dëgg yàlla ndax ñun ñi fi nekk it ñoo ngi ñun ak yéen ñoo ci yem duñ ci leen ay seere lañ ci waaye suñ Tuubaa la suñu borom di fay rek ndax ku xalaat te fàttaliku ba muy nekk ci géej ga moom dong su su ba su waree dog di rocci xobi garab di ko tuccu tuccal ngir dara jàll daaw bi ñu évaluer ñu gis ne daanaka téeméeri junni ak fanweer ak juróom-ñett ci ay nit doge nañ fi nga xam ne bët bu set ñeenti junni ak juróomi téeméer wala juróom benn téeméer lañ fi doge liñ doon jëfandikoo ci ci ci ci ci suukar rek daaw ñeenti ñeenti saako la ak juróom-benn kilo ak nangam waaw ah, daaw téeméeri tam ak juróom-benn ren bi boo xoolee bi ñu xoolee li ñu jëfandikoo mat na euh, juróomi saako ak ak benn ak ak ay ay kilo waaw juróomi saako fukki kilo ak juróom bu dee ajjuma wala événement am juróom-benn saako yu suukar lay doon par jour waaw loolu soo ko xaymaa li suukar ci ay liitar bët bu seen ñaari junni liitar lay suukar ci yi ñuy jëfandikoo te dara du fi des waaw te mbooloo mi koy liggéey fajar la ñuy xëy si ngir raxas kaas yi ndax bu fekkee war ñoo raxas lu mat ñaari junniy kaas ak nangam nga ne fi ne mbooloo mi li fiy doge kaas yi ban munu leen a moo tax ngeen gis kaasi acité yooyu uh, di jóge Italie ñooy mot bi nga xam juróomi junniy kaasi ban neexut a mhm. lu mat ñaari junni ak nangam la ñuy teg ci kaas yi kopp yi li ci des acité moo koy mottali nga xam ne loolu soo ko soo ko xoolee nga xam ne wax dëgg yàlla liggéey bi tey it Espagne dañoo bokk ci ñi ko sos ñi ko tàmbali ba mu agsi fii suñu borom nag yonente bi moo ne man sànna sunnatan hasanan fa lahu ajru wa ajru man amila bi ku sos lu baax ku la roy da nga am la nga war a am te du yàq ca la nga war a am dara kon loolu taw feex la ñu ngi ñaan suñu borom daal yéen ñi nga xam ne yéen ay kilifa yi nekk ci boppi daayira yi wax dëgg yàlla Euh, ñi ngeen nekk ci seen ginnaaw war nañu sant yàlla parce que dama koy faral di nettali bu baax sëñ Mamor Mourtala laa doon waxtaanal mu ne ma Abdou Lahad ma ne ma ne quoi mu ne ma caaxaan yi ñu organisé dafa bëri bay nëbbu dëgg yi ñu feeñalu bay nëbbu dëgg yi nga xam ne feeñaluñ yéen nag mos ngeen dëgg yi xam ngeen ko ba tax ngeen ci xiirtal seen booloo kon ñu nekk seen ginnaaw war nañu sant yàlla ci loolu bu baax a baax kon yàlla nañu yàlla defal tawféex ak taysiir rek te jëf ju nekk rek ñu bañ cee gis suñ bopp te gis ci yàlla yi kese suñ borom sellal suñuy jëf te may ñu kàttan ak jumtuwaay yu ñu mën a liggéeyal Sëriñ Tuubaa barakati xaadim rasul asalaamaaleykum wa wa barakatu yaa xayra ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi